ami internet yi suivre Guédiawaye info ñi nga am mbégte ak kontaante bu mag a mag tey ñu dalal Mamadou Seye le coordonnateur de Pastef Wakhinane Nimzatt Seye ziar naa la. waaw maa ngi dolli ziar Mbekaay man maa ngi tudd euh, Mamadou Seye nekk coordonnateur Pastef Wakhinane Nimzatt di rafetlu seen teewaay. Euh, le fait que ngeen may ñu occasion ñu mën a wax ak euh, les militants mën a wax ak les sénégalais wax ak les patriotes par rapport ak li nga xam ne moo xew ci Sénégal. Euh, li xaw ci Sénégal ñëpp dégg nañ ko demee incha allahu rabbi àjjuma immunité sa parlementaire Ousmane Sonko dañ koy muri depuis mhm. problème bi daf amee ba léegi lan mooy seen taxawaay. bon man li may li may wax ci euh, problème bi d' abord mooy mooy ñëpp xam nañ ko ne euh, complot la maanaam jaay doole mi ngi ci parce que aussi bon bi enquêtes yi poussé gis nañ ko ne carrément ñi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw mbir bi am na ci koo xam ne ñu ngi koy tudd. te ku jege nguur gi la waaw donc enquête bi jeexagul ñu jël dossier bi jébbal ko procureur procureur jël dossier bi jébbal ko waa assemblée bon li may wax ci waa assemblée rek surtout les députés ñu xam ne maanaam le fekk ñu nekk ci euh, ci ndaw pencum réew boobu noonu nekkuluñ fa Macky Sall wala nekk nekkuluñ fa seen bopp Sénégal yi lañ lañ fa nekkal donc du coup jàpp naa ne même su fekkente ne dañu war a lever immunité parlementaire Ousmane Sonko. war nañ mën a am ay base yu solide yuñ ko yuñ ko yuñ ko yuñ ko yuñ ko kiiwee yuñ ko dindee muuraay ki kiraayam parce que dans la mesure où tey yaakaar naa ne aji Sarr tey waroon nañ jël certificat médical am jébbal ko député yi au moins sax ñu am benn base bu solide lu ñu mën a sukkandiku pour mën a euh, lever humilité parlementaire Ousmane Sonko mais dañu bëgg a dem ci zéro parti ci zéro lan dañu jot ñaari plainte benn bi x lañ ci bind benn bi ñu bind ci Ousmane Sonko mais je pense que loolu c'est trop précaire pour ñu dindi kii bi donc ñooñu nañ xam ne ils ont rendez-vous avec l'histoire demain c'est un grand jour ils ont rendez-vous avec l'histoire nañ xam ne carrément Sénégal am na loo xam ne waru fi am parce que démocratie waru waruñu ko salfañé opposition dafa wara am ci réew donc réew bo xamné amul opposition démocratie bi mi ngi jël recul de plus en plus lolu c'est pas bon pour notre pays le Sénégal donc ñom suñu wax patriote nak nekul ñun kese ñun ñoy patriote yi ñoom dañuy woowee sen bopp patriote tout le monde se se se considère comme comme comme un patriote donc du coup dama jàpp né kenn waru leen mëna gëna bëgg Sénégal ci waxtu ñu toll ni wa légui nak moo moo loolu loolu tax nag ñu am soupçon que ne affaire bi am lu ci lal te loolu ñëpp am nañ lecture bobu non. voilà non bu na ñëpp am nañ lecture bobu da nga naan yéen yi nga xam ne and ak Sonko yeen am lecture waaw mais ñun ñi and ak Sonko ñun ñoo am lecture bobu mais aussi euh, le Sénégalais lambda ou bien euh, euh, comment dirais-je dafa am Sonko lu muy majorité silencieuse mooy ñi nga xam manam mu mbirum politique neexu len manam ñoru leen ñu ngi tok seen kër yi manam di observer di xol kan moy kan ak kan lu muy def n'est-ce pas mais ñoñu dofuñu ñooñu lecture biñ ci am la majeure partie mooy récemment bi problème amee ba léegi Sonko dafa gën a am ay sympathie les gens nous appellent partout pour jënd ay carte les gens nous appellent partout pour di di encourager davantage di ñu wax ne taxaw leen mbir bi ñëpp ñun xam nañ viol amul voilà donc loolu moo tax ñu gën a jàpp ne majeure partie des sénégalais gëm nañ que ne viol amul. waaw ba majeure partie yi yëpp ñu ngi wax ne viol amul loolu nga wax. Hmm. aussi tamit majeure partie sénégalais yëpp ñu ngi wax ne Sonko warutoon dem foofu yow loolu loo ko loo ban analyse nga cee wax. non mais mais ñi wax ne Sonko waru woon dem foofu mooy ñi nga xam ne peut dañoo jàpp ne maanaam feebar nekkul suy ñëw suy ñëw dalay tàggu feebar du tàggu borom yow xamoo ban heure la la la feebar di dam donc feebar su la dabee. yow y am que yow moyen financier ci dem autant plus que moom tax déclaration explique carrément que ne maanaam euh, dafa am fu mu a dem foofu cher mu ñëw rabattre ci avant il a posé des questions sur le plan religieux ak entourage am ñu ci bëri question avant mu fay dem bi mu aussi pas la première fois donc maanaam euh, dañ toll moment bi nga xam ne au Sénégal ab benn jigéen ab benn ndaw damay respecter ak ak yelleefu doomu aadama mais je vais le dire euh, ab benn jigéen warul mën a jaxase suñu réew warul mën a jaxase Sénégal

député euh, comment dirais-je euh, homme politique yi nga xam ne jaar nañ fi li leen écrasé ku mel Karim Wade ku mel Khalifa Sall loolu moo teyal xelu askan bi dañ ko waxte dé non xelu waa Pastef waaw mais xelu as su ma nee xelu xelu askan bi mais Khalifa Sall du Pastef Karim Wade du Pastef té ñom gis nañ liñ leen def. mais jamono ji yéna nek ci rang bi. yow loolu tax ñu wax ne xelu wa Pastef donc da nga wax né c'est à notre tour chez le coiffeur. non waxuma c'est ah. votre tour euh, euh, chez le coiffeur dama actuellement yéna nek ak yoon est-ce que amut sens wala amut ngeen bàyyi justice faire son travail. non dañ ñun dañuy bàyyi justice faire son travail mais on ne fait que alerter. Mm. alerter par rapport à ce qui s'est passé au Sénégal ñu teg si suñu bët. Mm-hmm. kenn nettaliwuñ ci. Mm-hmm. donc mu nekk li nga xam ne peut-être ñun jàpp nañ ne maanaam ñooñu ñu fuñ jaar ak ñoom. Mm-hmm. ah ba président Macky Sall taxaw ne day réduire opposition bi. à sa juste valeur n'est-ce pas donc du coup ma dama jàpp ne réew ah réew dëgg-dëgg dafa war a am opposition de forum opposition donc du coup euh, dama yaakaaroon euh Sonko suñ koy tuumaal dañ ko wara a ci yenen affaire yo xam ne sax euh, amna amna amna importance wala ci ay bases solide mais biñ xolé ba ci biir bi enquête yi poussé ah wax deug fa yalla nak ah xam nañ que né affaire yi ay tiaxan la. affaire ay tiaxan ci ay ci ay man japp naa ne duñ mës accepter manam le projet de passef mmh. muy naxsaay ci ay affaire yo xam dafa ay affaire tiaxan la parce que euh, Sonko bi nga xam tay mom mo ne ci bopp bi ah ak ñoom euh, Basirou Diomaye ah ak ñoom euh, Abbas ak yenn gars yi ci au niveau des régions et des départements gars ñu ñu ci bëri yalla dafa def mu nekk Ben, idéologie bo xam ku nekk mo nekkon sa bop yalla def ñu mu am ben coïncidence donc du coup so gisee lool non manam projet bobu mu projet boobu non, incha du mus a Euh, projet boobu mhm. incha allah du mos a du mos a yàqu dans la mesure où tey dafa nekk li nga xam ne xas na bokk ci histoire politique Sénégal ba pare mhm. loolu kenn mënatu ko effacer c'est indéniable. Euh, léegi ma ñëw ci benn mbir wax nga ko léegi léegi ñoom Diomaye seen gars yi ñoom Birame ñoom Abbas. Mhm. Euh, sa femme Birame ñëpp ngi ci kaso bi tey yéen lan moo nekk seen taxawaay tey. non loolu d'abord dañ koy ñëkk a naqarlu parce que ñooñu foofu du seen place foofu du seen place. xam nga li loolay wax sànq réew su amee absence de démocratie ak liberté d'expression ma dama jàpp ne euh, dañuy jël ay ay patriotes dañuy jël ay ay innocents di leen dugal ci kaso bi te loolu du yoon ñooñu maanaam seen place du foofu mais une place du tamit li tax ñu leen wax nañ ko dañ a euh, yëngal nguur gi dox ay pour yëngal nguur te nguur du euh, puisque man dossier mo PV li justice wax ak tout ça mais xam Fall mm. ah, nga jël euh, ah, ak patriotes yi ci prison bi mm. ah, ñoo ñu Sénégal Sénégal mo leen ñor sans wax ay affaire de par parlo parce que ñu ci bëri dama len pratiquer nga jël Abbas Fall yanu nañ ci vacances agricoles patriotiques yi ne ci tool yi di liggéey dama ko ñëw xamna wu baax euh, ces genre de personnes là ñoy ñan ah, nga jël Basirou Basirou Diomaye ñu ñom ñëpp duñu ay malfaiteurs en quelque sorte donc moo tax ma ne la ñooñu seen place du fofu Elle leen wara génné ci kasso bi ba pare tek démocratie ci réew mi xamné opposition dafa wara am par A ou par B opposition dina am loolu moom Macky Sall mënu ko bañ ñi mu àndal aussi mënuñu ko bañ dañu sonal seen bopp rek voilà eh, ba gis nañ benn mbir boo xaw xew xew ba daanaka mën naa berk démb benn journaliste de la place Aïssatou Diop Fall suñu confrère mu wax ci Ousmane lan ngay wax ci ban ban lecture nga wax yow nga nga def ci eh, réaction Aïssatou bon man je vais pas indexer directement Aïssatou Diop Fall parce que man damay jël dans le cadre général ma ma ne journaliste ci boppam da nga war a am impartialité waaw parce que ñoom dañoo jàng métier bi ba di ko exercer li juge Kéba Mbaye doon wax rek le journaliste doit informer juste et vrai l'enseignant il doit enseigner le médecin il doit soigner ku ci nekk su jouer ce rôle pleinement dans cette société rek man jàpp naa ne dañuy am benn société bu bu bu bu sereine mais tey lii indi jaxasoo bi mooy lan yow na ngay nekkee journaliste nga toog ci télé di wax te yow demoo vérifier information ba xam ndax li ngay wax loolu la wala du noonu ba pare euh, nga journaliste partisan en quelque sorte yow wane sa wane fi nga fété loolu dama jàpp ne loolu du rôle journaliste. te loolu parce que pourquoi ngeen jàpp ne Aïssatou dafa féetoo fenn rek. non man du ma du dégg bu déggoo ba léegi ma ne du ma indexé Aïssatou Diop Fall mais dama ne képp kuy def lu mel noonu jàppal ne nekkoo di def sa liggéey normalement. parce que rôle journaliste da nga war a impartial ci lépp nag da nga war a impartial tu dois informer juste et vrai léegi tu tu laisses l'opinion ñu joxe seen xalaat mais su fekkee yow da nga toog ci plateau diriger ay débat yoo xam ne dañuy xam ne yow mi journaliste nga on t'a invité nga ñëw di jël position loolu je pense que franchement c'est autre chose gis nañ tamit aussi yéen waa Pastef chaque fois maam ngeen intimider journaliste yi ku dugal wax boo xam ne nekku seen faveur day chargé wala day décharger ak ku munta doon muy Adji Sarr Sonko mhm. rek ñu ne eh, waa Pastef dañuy saaga loolu ci réseaux sociaux xam nga tey maanaam saaga saaga képp ku xam saaga dëgg ñun de mun nga war nga mun a déduire que ne un vrai patriote du saaga léegi nag je peux pas accepter nit ki dem ci internet bi créer page Facebook am def ci tour bu ko neex ah, def ci photo Ousmane Sonko saaga ngeen ne voilà kooku patriote la non mais on ne peut pas mettre tout le monde dans un même sac quand même am na ñoo xam ils sont mal intentionnés te Ousmane Sonko wax na ko génn na def déclaration wax na ne carrément képp kuy saaga boo ko donc du coup. Je pense ne euh, bon pas considérer que euh, ce sont les patriotes qui le font mm-hmm. d'autant plus que tous les patriotes ne sont pas parfaits mm-hmm. peut-être qu'ils xam ne bon nañ alors que les patriotes mais su fait ay ñoom ñu fait, koy def le rôle ne du patriote en quelque sorte mm-hmm. patriote tu dois montrer un bon exemple parce que nous sommes ci bëri politiques. mësul def politique la moo ñu politiques, parce que nous avons une idéologie Franchement, franchement bis bi gens am nañ yaakaar ne ëllëg suñu réew mun na changer waaw. tey lan mooy seen taxawaay ci waxtu bi ñu toll nii nga xam ne tey Sonko mi ngi ci situation yoo xam ne mën nañoo xam ne mu ngi ci gudd gu gudd gu bës waaw li suñ taxawaay ci waxtu bi ñu toll nii mooy que ne ñun on est toujours serein Pastef waxi naan Nimzat mi ngi toujours ci ginnaaw Ousmane Sonko di wax ne Macky Sall ak kii ñooñam suñu mënee jël dossier bi ñu teg ko ci suuf moo gën parce que maanaam dafa nekk ay affaires yoo xam ne franchement amul importance amul importance pour pour won Sénégalais yi que né manam ñun ak Ousmane Sonko ben lañ alors que yalla dafa bind te wul Ousmane Sonko tay xol nañ ko ci fu nek mënuñu ko laal Ousmane Sonko tay jëm nañ ko fagagal fu nek mënuñu ko laal légui ñu voilà li mo déssone parce que dem nañ ba découvrir que ne amna xam na xam nañ fa lay wo dem jël ben doomu jambour une innocente

maanaam santuñu ko sax ba ñu koy def. ah déet bul wax loolu ndax Ousmane Sonko barki démb ba keroog conférence presse am wax na na gars yi génn leen ndax yëf yi dootuñu. non Ousmane Sonko ba léegi déggoo ci làmmiñam mu ne dafa woote insurrection.

am ci ci ci dëggam la nekk dafa jàng xam droit am xam li muy def tey jii nii première convocation bi su demoon wuyu ko ñu kon dañuy jàpp ne moom peut-être moom xamul lu muy def c'est parce que xam na ne c'est un député am na lu ko yoon may moo tax mu euh, def li mu def voilà euh, sëy balaa ñu tëj il faut que ñu dugg ci actualité bi bërki démb gis nga ko vaccin bi wàcc na ci Sénégal président de la République vacciné noonu léegi léegi mhm. lan mooy sa taxawaay ci vaccin yi bon vaccin yi li ma ci mën a wax rek mooy d'abord comme ni mu ko yàgg di defee rek bi mbas mi duggee le deux mars boobu noonu gis nañ que ne euh, Macky Sall génn na ci télé bi won nit ñi ni ñuy raxasoo tout ça ñu ngi xaar mu ñàkku d'autant plus que dégg naa ne sax tey la waroon ñàkku. ñàkku na waaw ñàkku na ba pare. Mm-hmm. voilà su ñàkkoo ba pare euh, jàpp nañ que ne vaccin moom su fekkente ne scientifiquement ah scientifiquement euh, nekk na lu baax pour askan bi ñëpp war a dem ñàkku ji waaw scientifiquement nag parce que su may wax scientifiquement mooy. ndax vaccin bi ñu indil bu baax bi la wala bu bu bu bu. safaan bi waaw bu safaan bi la. Mhm. su nekkee bu baax bi la maa ngi woo sénégalais yëpp nañ dem ñàkku ji. Mhm. parce que euh, mbas mi sonal nañu trop. Mhm. activité yëpp taxaw na. ku ci nekk lu bëri la nga waroon def maanaam defoo ko. ndax lan euh, mbas mi moo moo moo taxaw. donc du coup maa ngi sensibiliser bépp patriote su fekkente ne maanaam am nañ possibilité dem ñàkku ji nañ dem ñàkku ji. te xam ne suñu réew ñun ñoo ko moom et l' avenir doit continuer Euh, kàddu mujj lan ngay mujjee waaw di leen sant bu baax di leen gërëm parce que tamit euh, Guédiawaye info man damay ne à chaque fois ñu ngi def liggéey bu am solo biir Guédiawaye ñu ngi permettre maanaam nit ñi di mën a exprimer wu ñu leen di dégg ñu leen ñaanal ngeen dem ba am télé ak yeneen topp ci di wax ne rek patriote yëpp nañ gën a euh, taxaw nekk ci ginnaaw Ousmane Sonko. xam ne combat bi su fekkee maanaam li li nga xam ne loolu la ñu yàgg xamee suñu justice à l'époque mm. ah am nañ kóolute ci suñu justice réew parce que récemment rek euh, Pastef Guédiawaye ak euh, APR euh, APR Ndiarème am nañ problème au niveau du tribunal yoon Pastef la jox la la la jox victoire. kon mënu leen bàyyi yoon bàyyi def liggéeyam moo tax ma ne la ñun amuñu de à l'époque li nga xam ne moo fi daan am ah amul benn tey koo xam ne da ngay àtte mm-hmm. ngay ngay am benn benn benn benn benn. Non, laa ko mën sax ngay ngay am ben ben ben pensée envers le pouvoir exécutif waaw da ngay def sa normalement comme ni mu waré on peut donner des exemples on n'en plus finir maître Babacar Seye jaar na fi ñom juge Kéba Mbaye jaar na fi ce sont des exemples des références Nous, xamne ne ñi nga xamne ñoo nekk fii ci magistrature bi n'est-ce pas